ñu nekk ci poule B wu édition coupe d'Afrique des nations bi war a amee ca Cameroun ca janvier 2022 Sénégal dina dajawaat ak ñaari équipe yoo xam ne miin na leen bu baax ci bile compétition ñeenti at ci ginnaaw ca coupe d'Afrique des nations 2017 ba doon amee ca Gabon gayndeyu Sénégal yi nga xam ne Aliou moo leen doon tàggat jotoon nañu bokk poule ak Zimbabwe ci poule B bi niki bi yoon Sénégal assuré woon place ca quart de finale yi. naka noon it euh, place bu njëkk ci group B bi ginnaaw bu mu daane woon Zimbabwe ñaari bal ci dara ci stade bu Franceville Sadio Mané moo dugaloon ci ab passe décisive bu Diao Baldé Keita naka noonu it Henri Saivet ci ab coup franc direct ba taxoon gaynde Sénégal yi qualifié ci quart de bu njëkk tiki 2006 ba léegi. waaye ca gannaaw ga Cameroun moo leen di mujjee éliminé ca tiro bisi yi ak Guinée nag Sénégal yàgg naa am mbégte ci li mu daan daje ak ñoom ci derby sous-régional bi nga xam ne mosta woon yomb ca 2006 ci CAN ba doon amee ca Égypte ñaari réew yi daje ca quart de finale yi équipe nationale bu Sénégal jëloon ci ndam ñetti bal ci ñaar naka noon it Henri Camara ak Mamadou Niang ñoo dugaloon ñetti biwu Sénégal yi waa gine ñoom Kaba Diawara ak Pascal Fendouno ñoo leen dugalaloon ca janvier 2015 Sénégal daanoon nit ci lu yaatu ñi nga xam ne ñoo di waa Guinée ci ab jongante xaritoo buñ doon amal ci wàccaayu Coupe d'Afrique des Nations 2015 boobee juróomi bal ci ñaar la gaynde yi daal di daanoon waa Guinée bu dee nag réewum Malawi moom ab équipe la boo xam ne daanaka Sénégal musta dajeek moom ci compétition yi ni mel ñaari équipe yi musuñoo daje ci équipe A yi benn ndaje rek bi dox seen diggante te am ci lu yàggul dara fukki fan ak ñeent ci weeru juillet gi weesu ci coupe COSAFA bi nga xam ne gaynde yu Sénégal yi fubal ci réew mi dañ leen caa invité woon sélection bi nga xam ne Joseph Koto moo ko jiite woon nekkoon ki leen doon tàggat ñoo ci mujjoon am ndam ñaari bal ci benn ci match bu ñeeloon journée bu mujj ci phase de groupe yi